yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf bu tedd ba ca Touba Serigne Mountakha Mbacké Bassirou bokk na ci l'Observateur xëy journal groupe Futurs Médias bi mi ngi ñuy xamal ko jàppoon bi Macky Sall di seeti xalifa bi l'Observateur ne nañu benn officiel àndu ca ñenn ci ay collaborateur sax ak ñu nekk ca cabinet ba l'Obs mi ngi ñuy xamal ne ci presse bi ci la ñu ne président Macky Sall demoon na Touba bi dix ci guddi weesoo ci la njiit mi yeggee jógee daaru minam gisee fa ak sang bi sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru ay 11h ci guddi ci la fa génn si Dakar waaye lañ fa doon waxtaane journal bi nee nañu kenn tanewu la ci soleil national nañu benn waxtu ci la ak président Macky Sall 22h30 ci la président duggee daaru minam 23h35 ci la fa génn vox populi nañu gisee bi am démb ci Touba ci guddi gi ci diggante sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru ak président Macky Sall ci lu jege benn waxtu njoxtes na ne tolluwaay réew mi ak yëngu-yëngu yi fi am fan yi moom lañu fa doon waxtaane bés bi la jour nañu yaakaar am na ci saafara tukki ci gise bi jëm ci fitna ji am ci réew mi li waral audience bi yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne ñoo ngi ciy tudd ay kilifa yu mel ne Muntaxa Kan di ko jege lool sëriñ bi ñoo ngi ciy tudd it ku mel ni Imam Dramé di bras droit bu Ousmane Sonko di ci tudd sëriñ Mbàkke Njaay di jege ñaaleb Macky Sall moom Macky Sall njiitu réew mi réew mi quotidien mi ngi ñuy wax ne waa F24 ak waa Yewwi Askan Wi ñu ko fu mu yekk ak nàkkam nee nañu àjjuma ji di ñëw ak samedi ji di ñëw fas nañu yéene amal ñaari mobilisation yu mag di ay rassemblement ngir sàkku ci Macky Sall ñetti mbir benn mooy mu bañ a ci réew mi waxi troisième mandat ñaareel bi di ñuy denc ci kaso bi te ñu jàppee leen ay détenu politique ñu libéré leen Ousmane Sonko mi ñu fàtt toogaanu ko tëj ko këram munta dem munta dikk ñu féexal ko lëkkut Quotidien ñu ci xëtamu njëkk waa F24 fas nañu yéene delluwaat ci mbedd yi ngir wañ loxo Macky Sall ba du fi yëkkati waxi troisième mandat journal L'Info ne ko boole ceeki teg ko ci kanami responsabilité ci fitna ji ñu fi dund ci réew mi fan yi ak bakkan yi fi rot ñu fore ci lii Quotidien ci kaw wutum jàmm ci réew mi am na ñaar fukki organisation yu fare ci société civile gi ci réew mi yu taxawal li ñu tuddee SOSP li ñu fas yéene yéene kaay bi nee nañu moo di gise ak président Macky Sall waxtaan ak moom gisee ak Ousmane waxtaan ak moom ñoom USP ñoo ngi sàkku ci njiit réew mi Sall mu defub déclaration génn na wax ak askan wi ngir dalal seenum xel synergie des organisations de la société civile pour la paix sursoi nee nañu mooy SOSP ñaar fukki kuréeli société civile yu nekk ci réew mi ñoo ko taxawal démb ñu ràññee ci ñu ca mel ne forum du justiciable ONG 3D GRADEC COSCE RADDHO ONDH ak ñu ni mel waaye Afrikajom Center bokk ci Y bokk a marre bokku ci Amnesty bokku ci muy Alioune Tine di Seydi Gassama ndax waa SOSP dañoo gis ne ñoom ñett ñooñee dañoo wane fi ñu féete ci réeroo gi ci diggante pouvoir bi ak opposition bi Karim Wade dal na ci kaw Sonko ak Macky journal Tribune moo ko bind ci xëtamu njëkk ba dañuy wax ne ci bataaxal bu mu bindee ci bitim réew ga mu nekk moom Karim Wade fa la waxee ne moom mooy ki njëkk loru ci doxalinu nguur gi fi nekk waaye violence du régler dara te kenn du jaar ci ay néew jógi ca ngir jot ci pouvoir bi pouvoir bi ak opposition bi seen diggante manifestation yi amoon ci réew mi fan yi dialogue bi président Macky Sall woote ba ci procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko lu ca nekk maître Nafissatou Diop xëy na di ci waxtaan ak waa Direct News ubbil yéenekaay bi maître Nafissatou Diop nee na li ñu naan magistrat dañu leen jox ay ordre ñu ko jëfe loolee bu doon dëgg la kon amaana procès bu Sweet Beauté bi dana demee neneen justice bi mënoon naa taxaw ci tuumay viol tëj Ousmane Sonko fukkeeti kaso waaye defuñu ko li ñu def maître na fi ne dafay wane ni justice bi ku moom boppam la ku tëb dal ci xal wala fi nee ñu nañu desene la weneen tëbin fitna ji ñu dund ci réew mi ak yàqu-yàqu yeeg lorange yi am ci réew mi ci manifestation yu ñu génn l'observateur gis na ne nar naa juraat yeneeni lorange yu gën a compliqué toj yeeg taal yeeg yàq yi tax na économie baa ngi sooxe secteur informel bi marché bi yu ca bari seenu njëg ci yokku ci la jëm ci tabaski gi ñu jëmit tabaski gu nar a gàll góose ci askanu Sénégal boole cekkit gis nañu ay perturbation ruy ci njàng meeg njàngale mi njàng meeg njàngale moomee journal Sud Quotidien moom la xëyee tëj gi ñuy tëj école yeeg université ci manifestation yi Sud Quotidien nee nañu bu ñu moytuwul année scolaire bi nar na ko yëg ñu yëgi ci mu njëkk l'Observateur ne jàpp nañu waa ji ñu doon tuumal ne dafa wuti woon fa ay ñaan bi manifestation yi takkarnaase ci réew mi l'observateur ne nañu ci la raaxaloo dellu si Touba libération nañu moom waa li mu dugg ay caaxaan génnewu ko ci ndax ba ñu koy jàpp dañu ne woon ñaar fukki xale yu jigéen ak juróom-ñett la violé waaye enquête bi wane na ëpp na ko xale yu ndaw yu jigéen yi ñu koy tuumaal ne moom la violé libération ne nañu toll nañu ci fanweeri xale yu jigéen ak ñeent